ñu ko dugal ci kasu bi moom Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké lu mu yëkkul Macky Sall daf koo fàtte ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo fi nekkoon ay jamono maire bu Yoff te ñu gàñe ko ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn jamono ji nag ma ngi moom Diouf Sarr nee na waa Yoff gépp nañu génn mobiliser ngir na coalition Benno Bokk Yaakaar man a gàñe man Abdoulaye Diouf Sarr ma nekk quatrième ci liste nationale Yaakaar yéen kaay gi xëy di ñu xibaar nañu ji géy na ba mara détaillé maanaam campagne bi dafa géey sëful xorom sëful suukar rawatina fi nga xam ne mooy ci région bu Dakar ndax tëbaski gi journal bi nee na tëbaski gi dafa freiné li nga xam ne mooy campagne bi ndax ñu bare bari ñoo ngi ci àll bi ñu bari dem nañ seeni kër te nag li nga xam ne sax mooy élection yi maanaam na mu doon demee mën na bañ a demee ndax ñu bari jamono ji ñoo ngi ci tool yi yéen a kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar nan ñu moo taxit ñi nga xam ne ñooy candidat yi jamono ji ñoo ngi buuxante ci kër kilifa diine yi maanaam di def ay visite de proximité yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa maire Ndakaaru doomu Jean Paul Dias na élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal daal votel benn bokk yaakaar mooy taal réew mi képp koo xam ne votel nga benn bokk yaakaar na leer na yow jamono ji ànd nga si ñi nga xam ne ñoo bëgg a taal réew mi ndax Macky salla bu ngeen ko votelee dina fi jéem a essayer ñetteelu mandat te loolee munta jàll te mën naa andi ak pëccëxoo ci réew mi na ñëpp génn votel coalition Yewwi Askan Wi su ko defee ko cohabitation am ci assemblée nationale ba tey ci biir journal bi ñu xëy fekk fa Abdou Mbacké Ndaw mi nga xam ne jamono moo fi nekkoon maire bu Mbacké jamono ji ma ngi ci coalition Yewwi Wallu ci département bu Mbacké nee na askan wi nga xam ne ci bu Mbacké dañoo war a sanctionné ki xam ne mooy Macky Sall ndax programme bi nga xam ne mooy PUDC PUDC di programme boo xam ne monde rural bi moo ko tax a jóg dëkki kaw yi te nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbacké maanaam dañu leen a jàppe ci PUDC bi ñëwul ci département bi loolee moo tax Abdou Mbacké Ndaw nee na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Mbour ñoom lu jëm ci wàllum ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi Mamadou Lamine Massaly nee na bu dee am na ñenn ñoo xam ne ñoo bëgg a taal réew mooy Ousmane Sonko ñi mu àndal yéen a kaay gi de ñu xëy fekk fa Mbaye Ndiaye nee nañ ñi nga xam ne yéen a dëkk parcelle élection locale yi ñu génn da ngeen juumoona votel coalition Yewwi Askan Wi waaye nag élection député yi nga xam ne moom la ñu dëg ma waa parcelle bu leen juumati di votel waa coalition Yewwi Askan a kaay gi di réew mi Quotidien nee nga xam ne nag ñooy waa ñoo ngi tojoon tey bopp APR Grand Yoff xar na xareeta la ko waral bokk na ci maître Ousmane Sy mi nga xam ne moom la ñu mu nekk coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Grand Yoff loole bokk na ci li nga xam ne moo andi ñol ñol ci yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu suuf si nga xam ne ñoo koy pasar pasare di ko caxte-caxte ci fi nga xam ne mooy aéroport international Léopold Sédar Senghor ak suuf si nga xam ne moom la saax-saax fi nga xam Léopold Senghor ak bande filao yu Guédiawaye yi suuf sa ñoo ngi koy pasar pasare ñoo ngi koy saax-saaxi ñoo ngi koy dëgg te na loolee lépp Macky Sall la yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Moustapha Fall Thié bu Benno Bokk Yaakaar moom nag nee na Benno am na ñetti adversaire ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la adversaire bu njëkk bi mooy coalition Yewwi Askan Wi ñaareelu adversaire bi mooy coalition Wallu Sénégal ñetteelu adversaire bi mooy ànd sàmm jikko yi ndax moom Moustapha Fall Thié nee na élection yi nga xam ne moom la ñu génn bëri nay gox yoo xam ne Benno ñàkk na ko ànd tax bennoo ñàkk ko yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ak Le Quotidien L'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu Ibrahima Kane mi nga xam ne moo nekkoon directeur général bu Air Sénégal dàq nañu ko li nga xam ne moo tax ñu dàq ko Air Sénégal compagnie la boo xam ne mbir mi mujjutoon a dem ci mujjutoon a dikk mbay laara loole bokk na ci ak retard yoo xam ne maara deytaali yéene kaay gi ne nag ku ñuy wax Aliou Badara Fall moo ko fa wuutoo yéene kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu Mamadou Seck mi nga xam ne bokk na si ñi ñuy tuumaale ci lu jëm ci wàllum force spéciale te nag ñu ne dafa feebara ba jëloon ko yóbbu ko ci spécial ñu wax ne dafa daal di évadé dafa daal di daw te nag dafa feebara moom Mamadou Seck moomee waajuram wu góor wax na nee na sama doom jii di Mamadou Seck bu dee nag dafa faatoo maanaam dafa dee wax leen ma ko jox ma néew bi ma daal di koy suula yéen kaay gii di Vox Populi nee na lu jëm ci wàllum force spéciale yi am na benn militant de Pastef bu dëkk Sam Notaire bu tudd Ami Dia boo xam ne moom tim teg nañu ko loxo Seck Modou Guèye mi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef Sam Notaire nee na intimidation gi nappaate gi xuppaate gi nga xam ne moom la Macky Sall ak ñi mu àndal nekk la di ko def waa Pastef loolee mënut jàlla yéenekaay gi di Libération xëy di ñu xibaar naan ñoo am na benn mafia boo xam ne ñoom dañu doon defar ay këyitu juddu am na si koo xam ne sax ab kongolo la defar nañ ko këyitu juddu Sénégal maanaam mafia bi ni mu demee ay samba boy lañ xam ne ñi nga xam ne sax duñu ay sénégalais dañu leen doon defaral ay këyitu juddu fii ci réew mi yéenekaay gi nee na ñooñee nag teg nañu leen loxo journal bi di Les Échos nee na Idrissa Goudiaby mi nga xam ne moom la ñu faatoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wi ñu génn sa diwaanu Ziguinchor te ay mbokkam wax ne takk der yi ñoo ko rey ak balu fetal ñi nga xam ne nag ñooy kuréel gi médecins yu Sénégal maanaam ordre des médecins du Sénégal ñoom nag tànn nañ lu toll si ñetti experts ngir ñu defaat beneen autopsie yéen kaay gi de la sax xëy di ñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Saint-Louis ci gox bii di Pikine jamono ji ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métte métti ndax ñàkkuk ndox gi nga xam ne maanaam moom la ñu amee yéen kaay gi de la sax na jamono ji ñëgg ñëg am na diggante Mali ak di d'Ivoire ndax ca diwaanu Mali lu ëpp juróom fukki militaires yu bàyyi ko ca Côte yoo xam ne dañu leen a teg loxo tax jamono ji tension bi mu ngi yéeg yéen kaay gi di record nee